Euh, day laaj patience boobu ni nga ko fàttalee ñëw nga ci euh, vraiment sermon bu am solo bi nga xamante ni imaam def na ko mu daal di ñëw ci poñ yu bëri ñëw ci ki nga xamante ni moo di euh, yonent yàlla Ibrahim nga xamante ni il fait partie des prophètes yi les mieux éprouvés de l'islam ndaxte nga am sa doom balaa nga koy am nga nekk ko nga am ay at yu bëri nga am doom boobu voilà donc président mu ngi nii di xaar imam daal di def sacrifice bi ngir mu euh, def discours bi nga xamante ne moom lay amal saa su nekk euh, gannaaw julli discours ndokkeel la ak discours ziyaarante ak discours balonte ak mm. ndax imaam nag kon mi ngi nii euh, incha allah xar moom la ñu lewetal noonu kon nag mboolem ñi nga xam ne ni ñoo fi julle see nag am nañu sañ-sañu nag dem <laughs> daa ko lewetal seen seen seen ab gàtt mm-hmm. ni ñu koy baaxoo di defee itam nes tuuti incha allah njiitu réew mi di président Bassirou Diomaye Faye mm-hmm. dina am bataaxal dina am kàddu yu ndokkeel mm-hmm. kàddu siyaar kàddu yi balonte ak mm-hmm. eh, ni mu ko waxee woon itam ci korité tey mu doon duñu jàpp lool mu ne ñi mu tooñ ak ñi mu tooñagul ñëpp lool nag dégg mu kawee kawee kawe ndax ak tooñ mënut ñàkk uh-huh. ndax ab doomu aadama moo matadi te ay jaam lañu te loole nag bokk na ci xam ne lott nga ci mm-hmm. ñàkk mën a tooñ mm-hmm. ndeem nag ñàkk mën a tooñ Euh, moom ala kulli alil kenn mënu koo am kon nag bokk ñuy baamtu ak itam di sax li tubaab di wax anticiper. Mhm. di njalbeenu li nga xam ne dañ koo defagut ndax loole day ngëneel loolu nag bokk na ci xam ne euh, ku jiita itam ak ka ñu jiital ñu bokk itam euh, ñoo bokk dëkk bi bokk réew mi bokk liggéey bi te ku nekk bëgg lu baax te lu mhm. baax jafe nañu bokk ca itam tàmbali ba te itam am ci yàqin am ci yéene am itam ak bëgg mhm. loolu rek moo am solo loolu dafa doon loo xam ne lu ma jàppoon la ci korite gi ñi ma tooñ ak ñi ma tooñagul ñëpp ndax ak tooñ mun ta mhm. ñàkk donte kenn du ko def ci tayef waaye nag mbind doomu aadama moom la suñu borom moo ñaaleel ak matadi kon nag bu ñu amee itam euh, xam ngoogu am ci yàqin jooju mm-hmm. waaye itam am itam bëgg nekkat saa su ne ñuy jéggalu moo waral ñuy war di baamtu lool mm-hmm. istixfaar ni ko imaam yi di waxee waaye suñu digganteeg doomu aadama itam luñ ci man rek di tuub ak jéggalu nag di toroxlu loolu mm-hmm. suñu borom mi nga xam ne moo sàkk doomu aadama sàkku ñu itam te lu mbind yëpp gën moo gën cee ponk doomu aadama mën nañoo defal tawfeex ci ak ñàkk motadi boobu j'espère que ci sermon am sax euh, imaam bi dellu si na si ak suñu maam yonent yàlla Ibrahim bi nga xamante ne bi mu nekkee ci yoonu tarbiyu boobu nga xamante ne mu ngi doon wër dëgg-dëgg boromam ndax moom dafa teel a jeex si boromam lu génn rek mu ne xaasaara bi lu génn lu génn rek bidéew bi nu mu ne xaasaara bi lii xaasaara bi bu mu bu mu demee nag ba gis ne lépp fenk na mu ne dëgg-dëgg ki amal lii yëpp ki amal lii mooy suñu borom kon nag euh, comme ni nga ko waxee rek président mu ngi naan ñi ma tooñ ak ñi ma tooñagul hmm. kon loolu da ngay gis ne même ci marketing social bu lay jàngal les euh, les les différentes étapes de changement de comportement hmm. man fa la may yóbbu c'est-à-dire prise de conscience bi nga xamante ne yow xam nga ne moto te yàlla def ñu bind si motadi dans une imperfection totale la ñu yàlla bind waaye motadi boobu nag bu fekkee ne yow doylu nga sa borom xam ne jaam bi jaam rek nga ndax yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa